والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت ذا إسلام صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرضا مع الكتابة yaa waahiban wahaba li kitaaba waktub salaatan wa salaaman yaa ahad bopp gi koy jàppale ñëpp rek macha allah di ziare délégation officielle bi fi teewoon monsieur le président de la République ak fi délégation yi fi teew yëpp lim nañ leen du loolu danañ ci dellu si xam naa ne lii da ngeen baax rek waaye jaru ko woon ndax it loola fa dañuy wax koom ku du lakk te dana am loo xam ne Serigne Sidi Moxtaar mi sañ na ko wax na ko Serigne Fallou man sañu ma ko ndax ne mbir mi demee bi ñu ko waxee lay naa ba tàyyi lay naa ba tàyyi rek waaye xaw ma nu may def sama doomi sëriñ yi Cheikh Ahmad Badawi insisté lool insisté lool xaw ma nu ma koy def ma ne kon na tënk ay baat ndax am na am na ci loo xam ne su ma ko xamee du ko sañ a wax ndax ak nit du ko nangu waaw ndax say naw la ñu teew ñoo ngi ñëw naa leen lii ki laa eh, loolu xel mënu ko jàpp te jaaduwul moo tax bi ci waxtu guddee lool gannaaw bu daanaka boobu julli subi jege na Eh, ma ne naa tënk ay baat rek yoo xam ne day nekk waxi sëñ Fallou eh, yu mu daan uh, jëfee bu nekk def ko ay wax yu yu lu gàtt lay doon rek ndax waxtu yu soreetul ngeen baal ma dama ko bind sax ci kayit waxam brouillon la jotuma ko defaraat sax ndax xataay ma tënk ko ci fukki point ak ñaar rek xam ne yu gàtt lay doon rek di waxee sëñ Fallou ñu tënk ko ñu yóbbaloo ko ndax am na ci loo xam ne duma ko sañ ñii sëñ Sidi Moxtaar doon waxee sañu ma ko waxee man waaw ndax ni ngeen xam ne ni mbir mi demee dañuy siyaare ñëpp rek di teg kàddu yëpp nag ci eh, eh, eh, loxo borom jotaay bu ma Cheikh Abul Baraka mii ñu koy siyaare bu baax te ñaan yi wéral ko yàlla guddal fanam bari muy liggéeyal sëñ Fall ak bëgg koo liggéey Cheikh Amadou Fall lépp mu àggale ko ci sago te nu fekkee ko te ànd ko moom di siyaare ñëpp nag Mbàkke nga jéggal ñu nag damay wax ne moom day xalifa boo xam ne kaar yàlla da ko defal lu mu defalul xalifa yu bari loolu yàlla na yàgg lool te yàlla la ñuy cat ndax xalifa yu bari kaar dafa daje ci moom ndax koo xam ne kaar xalifa nga sa waajur di xalifa sa rakki waajur di xalifa sa magi waajur di xalifa sa nijaay di xalifa kaar ngay xalifa loolu alhamdulilah rabbi yàlla na yàgg lool yàlla na yàgg lool te ak wér ngay xalifa bu lewet nag kaar ndokk kon ndokk bi nga mel nii ndax noo mën di mel tam yaa ñu yilif ndax amuñu pexe ji am duñu dem feneen kon nag ndokk bi nga mel nii duñu ñee kenn ci xalifa lewetu xalifa duñu ñee xalifa ci kirange xalifa duñu ñee kenn tam ci sañ sab xalifa <laughs> jërëjëf baax yàlla yàgg lool li ñuy tënk incha allah lu gàtt lay doon ay benn benn waxtu yoo ay wax yoo xam dama cee tànn fukki wax ak juróom ak ñett ndax yàlla wétr la yoo xebal wétr gannaaw ci ci jotaay bi diine lañ yor yàlla dafa tool day bëgg lu tool moo tax ma def ko treize treize point rek kaar waxi sëñ Fall la yom daan wax yoo xam ne doon ko doon ko dundee sëñ mu sëñ mu sëñ Moxtaar Sidi Moxtaar Ka wax na ci lu bari waaye noonu la ko tënkee rek ngir bañ a baamu ak lu gën a gaaw ndax li Sidi Sidi Moxtaar wax doy na sëkk lii dama xamul lu may def si Ahmad Badawi rek moo tax waaye kon kon du ma ko ci def kon damay def rek la mbokk ma waxoon rek mbokk mu bari xorom eh, toog sa damay toog saa saa di laaj saa café di ko seetaan ci télé yi lay <laughs> def waaye bi soo ma demee sëriñ sant lii nag xamatuma noo koy def moo ñu tënk lii rek fukki point la ak ñett ci gàttal balaa ju liggéey ñëw bu njëkk ga da sëñ Fallou ne woon may Sénégal sëñ si defaxtaan wax na ko may Sénégal nag moom fi la wax yem te boobaag léegi déggatuñ ko ko wax te lam ci jublu rek waaye du ne moomam Sénégal wala moo ci déedéet dafa bëgg wax ñëpp laa jaboote rek waaw julli yéeg ñu dul jullit taalib yéeg ñu dul taalib murid yéeg ñu dul murid ñëpp rek laa jaboote kon ñëpp laa fi loolu mooy may Sénégal koo xam ne nag sa yaatuwaay ak sa li mu juñu sànq eh, sa yaatuwaay àgg na ci ne may Sénégal kooku de jàpp nga ne yaa war a laa waa Sénégal gépp yaa jaboote waa Sénégal gépp beneen ba mu ne mas na wax ne xajoon naa seen i bang-bang ah, xajoon naa seen i bang-bang kooku mooy am naa tolérance ak ouverture xam ne nu mel rek mën naa ko toléré loolu ko yaatu ni mu waxee ku yaatu doo ko mën ma mas naa wax itam mu ñetteelu point bi lu ñu fi indi mooy xajoo ak xaje xajoo ak xaje nu waay ji nu waay mel rek xajoo nañ ko nu waay taq ak nu waay cëre ba nañ ko xaj xaj mooy mën nañ ko fóot mën nañ ko defar ba ba ba mu laab kon li ñu fi indi mooy xajoo ak xaje te loolu kenn jëndute néew dama dama damay xajoo ak xaje sama njaboot wala damay xajoo ak xaje murid yi wala damay xajoo ak xaje yi ñëpp rek damay xajoo ak xaje mënuñu fi indi kon principe général li may wax ay principe généraux yoo xam ne da ko daan dund daan ko wax ñu jukk ko nag di ko baamu ndax li ma ko wax da ci am loo xam ne du ma ko sañ a wax kon li ñu fi mooy xajoo ak xaje ñeenteel ba mu ne damaa def koo xam ne dama ŋëttut te su ma sañoon loo baax laay am te bokkoo ñëpp waaw ko xam ngeen ko da ko yaatu loolu ba tey mi ngi wane yaatuwaay ba te su ma sañoon baax laay am te bën ko bokkoo ñëpp ñëpp nag ñëpp ngi kon nag loolu moom defe naa leer na taalib bi yeeg ñu def taalib bi yeeg jullit yeeg ñu jullit ak murid yeeg ñu du mbër ñëpp ak ci soo seen lu baax laay am te bokk ak ñëpp loolu defe naa ne moom it leer na juróomeel ba wax ne genn bëgg la am moom Serigne Fallou mooy Serigne Touba genn bëgg xubbi lahu dahra yuxni nii an xubbi si waaw la Serigne Touba waxoon sangam rek sallallahu alayhi wa sallam mahad mahabati al muxtaara sayidina xubbil maganiya wal ahlina wal walada daal ci teg la mu ciy teg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax na dootuma bëgg leneen loolu moom lim nag dami wa nafsi wa awlaadi lfi daa lahu abdan xadiman lahu muy kaana li sanada sëñ Fall ne nekk fay lim moom dafa wax ne bëgg gi mu bëgg sëñ Tuubaa tax na bëggatuma leneen loolu moom genn bëgg képp laay am muy bëgg muy sëñ Tuubaa xubbi lahu dahra yuxnii nii an xubbi si waaw beneen principe bu muy juróomeel ba mooy man ñëpp laa fi nekkal te li indi xisa ba mooy dafa am sama benn wëllëre ci gàttal ci beneen yoon la bokk yàlla da ko xiroon sëñ Fàllu mu fi ñëw vacance ne doon liggéey boobu société bi ñu wax ONCAD am nañu am nañu ko xam ci mbooloo mi ONCAD nee na mu daan def bu bu amee congé ñëw ci sëriñ bi nekk fi congé nag ci miin sëñ di ba congé bu jeex buy dem sëñ bi yooyu ko mu ñibbi def koy at nee na am ci ay jamono nag muy xalaate jébbalu ndax waa ji day wax ne moom sañ Fallou ko tey nekk murit mu ne ko ah loolu boo ko dee wax gaaw a léegi gars yi du la di sëñ Fallu nu mu tee nekk di kenn mu murit mu ne da yàlla dafa def yàlla barkeel lam ñam lu mu wax yàlla def ko ma demoon nag ba woon ba bëgg jébbaloo am bis nag fi ma dalal am ñu am ku may waxal ñu wax ak xam nga biir kër gu mag rek waaye ne ko yaa ngi nii li ngay wax ne da nga bëgg sëñ bu dëgg ci yow doon dëgg ci yow ba léegi jébbalu nga yaa ngi dina ko fàttali xam nga moom day tontu xol nee na ba mu génne mu xam ne ne ko nan ko dal bi waaye mbaa mbaa yaa ngi ci jàmm ne ko ah am na lu fa xew doon na waxtaan diw ba mu ne ma li ngay wane ne da ngaa bëgg sëñ bu dëgg ci yow ndax yow yaa ngi ni tiyaan nga bu doon dëgg ci yow nga jébbalu mu ne ko nga ne ne moom doon na xalaata jébbalu nee na sëñ Fallu ko mu ne lan lan nga nee na mu ne ko da dama nga moo desal cootu desal cootu tey di bëgg nekkal waaw soxla wax ko ma def ci la ma man su ma ko boole laa ko ca man ma bëgg wax rek ma bi ñëpp laa fi nekkal desal cootu tey tey dama ko ñëw man ñëpp laa fi nekkal ki may wax histoire bi mu ngi ñu wax Pape Ndiaye su ma ko duroon dana am ñu xam ci mbooloo bi taalibe sëñ Mansour borom mu ne mu ne kon sëñ Fallou ma tey nekk murid waaw pour wane ñëpp la fi nekkal la ci la bëggoon a insister beneen ba loolu nag mbiram la moom la ma waxoon ne ku ma gannaawal doo am gannaaw moom mën nañ cee wax yu bëree bëree bëri ku ma gannaawal doo am gannaaw am na ci loo xam ne du ma sara waaye ñu doy na borom xel waxoo tam ne bàyyi naa kaf ndax suñu borom xamal ne ma kaf fekk kaf ak fekk ñoo bokkee lettre kaaf ak faala wa fa ak kaaf lu ma lu ma kafee rek suñu borom fekk ma ca kon bàyyi naa kaf ah, ah, ah, kaf fekk loolu lu doy waar la loolu nag xam nga saraa gi saraa gi du ma ko sañ waxaat ne ñu bare ci nit ñi xàmmewuñ bëgg sa bopp ak bëgg say bokk na mu ne bëgg say bokk mooy loo am denc euh, euh, euh, nu ñu koy waxee sax rënk dajale bis boo fi jógee ñu séddale ko say bokk mu jeex mu ne bëgg sa bopp nag mooy loo am def ko ci nit ñi ngir yàlla ëllëg ku bokk ci lu mu ñu defal ko ngir yàlla ah loolu mooy bëgg sa bëgg sa bopp lu bari ki nit ñi xam ne bëgg sa bopp ak bëgg say bokk waaw ah, bëgg bokk mooy loo am dajale ëllëg boo fi jógee ñu séddale ko say bokk yëf yem fa bëgg sa bopp nag mooy am loo loo am def ko ci nit ñi ngir yàlla boo ëllëgee ku bokk ci yow lu mu bëgg ñu defal ko ngir yàlla defe naa loolu ñun dongo yi xam nañ ci lu bëree bëri kaar <laughs> yàlla na gën a yàgg loolu rek eh, waxati ne jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi loolu defe naa dégg ko ba tey jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi te ñi ngeen di wax ne ñoo sëriñ sëriñ ñii loolu waxinam la ndax moom benn sëriñ la mooy sëriñ ñun ñu rek benn sëriñ la am muy sëriñ Tuubaa ñun ñu ci des ñëpp ay taalibe rek ku ne da ngay am jëwriñ ñoo jaare tabbi ci sëriñ Touba ba tax mu ne ñi wax ne ñooy séeri séeri ñii bu leen ci seen dig dara ëllëg lu leen ci waaye maanaam léegi nañ la ko defal fii ëllëg borom baraag borom baraag bi rek ay fay borom baraag bi rek te borom baraag bi mooy sëriñ Touba war ma ji da cee àggoon bu du ko tudd bu ngeen seetlu ay waxtaan dégg ko daan kii ñoo àndal ak moom meeg borom baraag beeg sëriñ beeg waaye du jaar ci tëw mag yi ndax ndax war ma day day mel da koy war ma ba koy sakkanal kon loolu mën nañ ko lu ñu a réew ci moom la eh, eh, beneen lu mu waxoon tam mooy lépp too fa lépp too faytoo am na lu taxoon mu koy wax du ma ci ci détaillé waaye magal gi da ci firnde lépp too faytoo ndax magal gi xam ngeen damay wax ne magalu Kazu Rajab jazaa'un li magali safar ndax magalu safar sëñ Tuubaa ko digle waaye woote wu ko woon yéen ñëpp xam ngeen ko wax nañ ko ba tey waaye sëñ Fallou ko woote nag taxawu ko 47 ba 68 mu àgg fi mu àgg loolu xam ngeen ko du ma ci insisté waaye magalu Kazu Rajab itam sëñ Fallou wootewu ko woon. da ko daan dem Daaru Salaam di fanaan fa bu seetee mu xëy dem kër sëñ Afe dellu si këram ñu tuddee ko nganuk Daaru Salaam gi waaye déw di ñun ba taawam ba Cheikh Abdoul Moustapha Fadilou ko wooteel kon dama kon day mel ne kon lam lam ne woon lépp lam leba doon sëriñ Touba ci safar loolu la ko sëñ Touba ci eh, Kazu Rajab waaw nga ndax li muy wax leer na am <laughs> kon màggal gi màggalu pay laa kon lam ne woon lépp too faytoo mën nañ ci jël ma daal rek ci màggalu Kazu lam la lam lam liggéeyal sëñ parce que kenn du ko lebal ndax moom lépp da ngay jël ci defal ko waaye moo ko wooteel màggal gi ci Touba ñu ko fi daje ba mu àgg fi mu àgg loolu la ko fayee Cheikh sa Moustapha Fadilu Mbàkke itam wooteel ko ka Kazu Rajab di ko taxaw taxaw ko 1970 ba 2000 waaw kon lépp too lam ne woon lépp too faytoo loola moo xew ci lii beneen euh, principe bi nga xam ne bokk na ca la ma waxoon ne man ñëpp laay jàppale ndax ku yàlla tayyewut a bind du ma ko tayyee du ko tayyee teral ku yàlla tayyewut bind du ma ko tayyee teral kon bu lay buy teral nit du ci seet ba xam fii nga bokk ak bokkoo fee ak bi nga jullit nga du seet ba xam jullit nga mbaa doo jullit na ngay nit rek waaw ndax ndax ñetti ñetti principe mu ne fo nit gi yàlla la bind te gannaaw yàlla tayyewut a bind moom du la tayyee teral sallallahu alayhi wa sallam melow melow nit la yoroon donte moo gën nit ñëpp ku baax kii melow la yor donte kenn mel ni moom muslaam kon nag moom du la tayee teral fukkee ñett ba ci bañ a gën a guddal daana wax ne as gor bu waxee day sàmmi ba xam booba la taxoon mu koy wax mooy booba dana wax ne yéen taalibe yi da ngeen wax ne jébal ngeen seen bopp sëñ Tuubaa amatu leen dara la amatu leen kenn amatu leen fenn amatu leen seen bopp sax ay as gor bu waxee day sàmmi waxam te loolu nag muy principe boo xam ne réew mi war nañ ko soxla bu baax a baax a baax ndax ñun xamuñu wax waxeet as gor bu waxee day sàmmi waxam loolu lu mu daan jàngale te loolu lislaam la loolu diine la yàlla nañu ci yàlla dimbale maa ngi jéggul na ci kàddu yi te ñaan yàlla def jàmm ci réew mi loolu sëñ bi ko mën a ñaan sax waaye moom ñun si yoon nekku ci loolu sëñ bi ko ñaan kon nag xam te dana ko ñaan xam naa ne ndax réew mi damay wax ne ñun ñëpp ñoo ko bokk te dafa rëyut daf koo fa sa mbokk la mbaam muy sa mbokkum mbokk wala muy sa xarit wala mu sa xaritu xarit kon wax lu dul noonu xaju fii ñunu nee na sëñ Saliou Mbacke daan wax ne damay wax ne Sénégal yi booy wax ak ñoom lu bari ñaari ñaari domaine lañ bëgg lool lool ngeen baal ma ci lay daanale muy sport ak politique sport luñ ci dugg waaye politique bi ci woppam sëñ Saliou Mbacké da ko tënkoon tënk boo xam ne rek buñ ko déggee dañuy noppalu mu ndax mu ne weesuwul ñaar rek bëgg falu ak bañ fale ko lu coow li bari bari rek weesuwul yi bëgg falu ak bañ a te dara jëlu ci wax ju ñaaw dara jëlu ci defante lu ñaaw ndax ñu ñu nee na ndax réew ñoo ko bokk mënuñu ko séddoo mënuñu ko séddale kenn mënu ko jël bàyyi sa morom kon nañ rafetal bokkin wi asalaamaaleykum wa rahmatullah